te njaboot yi def ko ngir fàttaliku seen sëriñ fàttaliku seen maam sëriñ Saliou fi ñu koy fàttalikoo nag barabam la muy juma léegi fu ne ñaa nga fay tudd sëriñ bi fu ne ña nga fay woo sëriñ bi fu ne ña nga fay waxtaane sëriñ bi te ñuy wax ci sëñ dara wéru ci ay xuraafaat rek la sëñ Saliou ku ko waxtaane ci jàkkaam fekk fi njaboot gi mu defar ba noppi ci ñoom ak ñi mu jabootal boppam ci dara nga xam loolu rek bi la sëñ saa yu nekk mooy def te mooy lii dundi dundal diine bu wér cëng dundal ak taali bu wér cëng di la sëñ saa yu nekkoon ba jóge te neewoon na lu diine automatique dafa automatique yàq kon nag suñ ko dee fàttali bi jumaa ji njabootam gépp teew bi ñu yëkkati kàddu jox ma dana dana diis ci man kaay àggale wax man kaay àggale wax Cheikh Bass damaa gàddu woon di ak sigar ñëwal mbakki bala sëñ Sadio dafa bokk ci sëriñ si gën a sonn ndax dañ ko def marketing léegi di ko wutee marché gis di ko wutee xaalis te moom de lu mu ci masaam ci yoon yàlla ko delloo ak jox ko addi Sëñ Tuubaa kon nag ñi koy tuddoo ak ñi koy wuyoo ak ñi koy woote war nañoo xam-xam tegoon tànk ñu teg fa seen tànk lam doon dund ñu koy doon ñu di ko dund te bàyyi caaxaat yi kon bokki taalibe yi sëñ Saliou yi xam leer nag ñu la nekkoon boole ko xàq bu wér cëng te lépp da ko matal da koo matale dara yéesu ci sarixa du ko jam la ak taalib du ko jam doon liggéeykat boo xam ni lu mu liggéey jox ko delloo ko ci yoon yàlla mas sama wax ni bu ngeen gisee su ngeen su su ngeen bàyyee te mën a foog ko jox ko sëñ ki fi sëñ bu baax dama leen bëgg lu gën a sakkan waaye lu ñu jox sëñ tubaab mën naa ko jëfandikoo boole kër gu mu tabax def fa daara alxuraan def fa jàkk ba fa nekkee mooy jiite julli ga waxtu joor bu fa newul ma teg fa ndaw loo xam ne moo jiite julli joor kooku nag kon suñ ko dee waxtaanee ci bisu koor ci jumaam ji delloo nañ ko ndikkal tey jéem a fay borom mu ne su koo fay sax waaye jéem rek kon sëñ Mourtala yow mi imaam bi ak seen ji li sew ak seen rak seen i wajur seen i ñoom sëñ Cheikh ak sëñ Moussa ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaar seen barke wajur saa borom dafa leen tawféex dafa leen gudd fan defal leen wér dafa leen yokk ak mucc ak jariñ ci barke sëñ Cheikh xam naa dina jafe ma wax bi ndax wax sa bopp la moom sama lépp day sëñ Cheikh bi sëñ Abdou moom ma waxoon tey bis ni ma am sut ma ne ko mbàkke man ma jantu sotti amul sëñ sëñ Saliou daf laal tànk ba mu dellusiwaat ne ma li ma am yow sax may naa ko sëñ Saliou sama lépp sañ Saliou kon moo tax wax fii ci man dana ndax bëgg gi ma ko bëgg ak doyloo gi ma ko doyloo ak wóolu gi ma ko wóolu dama ko defal kenn ku doomi moom te it lu ma wante ci boppam moo tax ndax su ma ko wóolu ma itam dama koy gàntal ak li may jóg rek waaye wajur woo xam ne dalaa def naaw la sigil la sagal la teral la ormal la mënoo def lu may fay ko moo tax sama lépp jébbal naa moo tax ñëw ci jàkkaam di wax ñëw ci ay taalibeem di wax ñëw ci ay bokkam di wax da dama jël waaye yoon bi rek a ngi nii sëñ Mourtala noppi waru leen ndax seen bàyyi dafa set wecc ne ci lu nan ñi loolu nag da ko war a leel tar yi bañ xam ko te ñuy defee xuraafaat ngeen di ko weddi te bàyyi caaxaan nag sëñ Saliou kat ci lu leer nañ la nekkoon te su ngeen weddiwul nag day mel loolu dëgg la te baax ak yàq rek li te loolu lépp nag war war nañ koo moytu sëñ moom ci baax lañ ko xam ci jaamu yàlla lañ xam ci liggéey lañ ko xam ak topp kilifa boo leew ci leneen su fi nekkee ba jóge nag def lim def lépp rafet am ay samba boy yoo xam dañuy wër ci àll yi ngir def ko masdaru tarwa rek wutee ko xaalis war naa mën a ñàkk ñay jabaraan ña ca ñay wootee ceex ña ca ca làmba ja ca ñëpp ngi ci ngir sëñ bi loolu nag ak laabiram ak wayram ak ak um ñàkk a dem rek moo ko taxal te lu bari dawul ak ci moom waaye sëñ moom ci dëgg rek la nekkoon akuk jub akuk maam ci la def ak ñun yar yépp ndax daana wax ne yoon wi ko sëñ Tuubaa jaarale ci la jaar ku ko nangu itam ci lay jaarale mooy di di woor di natt asaka di jaamu yàlla lépp sëñ Tuubaa yàlla ku ko ci la lay jaarale ñi àndoon ak moom nag te dëggal jubal ñëpp jar nañ ñëpp àgg waaye ña àndoon ak moom nag xam nga ne ci sëñ bii itam dafa am te nekkul sa bopp rek ñoo fa nekk li li li Moussa Ka wax ki ma jege tey def li ma bañ yaay ci sooy waaye ki sooy tey def li ma bëgg yaay ci jege mën ngaa ne ci gësëñ bi nag te la sëñ bi bëgg doo ci jaar dara doo ci def dara te boo génnee nag loo xam ci gësëñ bi laa nekkoon ñëpp dañu dëgg la fa nga nekkoon waaye loo fa nekkee woon nag est ce que dëgg la est ce lu baax la est ce que lu luy jariñ la loolu lépp dafa ma leer yéen samay